leader Trump bu Bassirou Diomaye Faye waaw espoir bi yaakaar naa ni fi ñu commencé puisque tamit espoir fu muy dem dafay fekk ñaar ñu mën a kii ki la nootoon ak ki ñu noot ki ñu noot bu fippeekoo ki ko nootoon nangu ni que kii fippeeku na ñu mën a kii et c'est un discours qui est extraordinaire à retenir mm -hmm. c'est-à-dire cette réciprocité des respects mm -hmm. cette mutualité nga nga respect nga wekk ma ma wekk la gis nga cette rencontre là dafa génne ay ay dafa génne lu bëri ah. li mu génnee mooy ni que mm-hmm. euh, jàpp ñu ni fi ñu jëm tey fu mu fi ñu jëm bu ñuy wax waxu relation France su ñuy wax waxu France ak Afrique France si boppam moo nekk si situation bu confus moo nekk si situation bu confuse moo nekk si situation bu délicate. ñoo soxla Afrique nga bëgg a wax. tey France mënutul dem sans Afrique te Afrique fipp na dàq nañ leen. Burkina Faso dàq nañ leen Niger. Mali dàq nañ leen Mali dàq nañ leen Centrafrique. Mhm. Sénégal mu ngi ne dañu xoolaat seen bopp. Mhm. Côte d'Ivoire peut-être état bi mooy population. Côte d'Ivoire peut-être mooy camp bi fa nekk moom moo waral loolu. ba tey mais avec une nouvelle génération dina changer. mais li wér ba wóor. mooy ni que ni ñu réaxé li nga xam ne moo nekkoon suñu relation en matière d'intérêt mhm. suñ ko tegaatee si relation boobu ñun soxla nañu France c'est-à-dire loolu tamit il faut que mu leer gis France mooy buntu mooy buntu bi Afrique mën a duggee biir Europe si mhm. pour yenn dëkk yi pour yenn dëkk yi Sénégal mënul tàqale ko France sur la sur le plan international sur le plan mondial et sur le plan de la diplomatie mhm. parce que ñaari paire lañu mais nan lañ koy defee ba nga xam ne tey Sénégal France dootu ko imposer ti wala dootu ko won yoon bi muy jël ak ah, alhamdulilahi rabil alamin sànq maa ngi lay wax ñoom ñaar seen rencontre bi am Paris mhm. boo xoolee rencontre bi mu nu mu amee c'est pour la première fois dans l'histoire un chef d'État un président sénégalais est reçu de la sorte en France ce n'est ni une visite officielle mhm. ce n'est pas une visite d'État xam nga visite d'État buy am France drapeau yëpp dañ koy génnee Champs-Élysées préparé venue bi Champs-Élysées ba Trocadéro yooyu yëpp ay fas ñooy der président dafa am protocole bu mu war a kii. Mhm. te lii du visite de travail mënuñu ko classer visite de travail mënuñu ko classer encore comme visite privée. Mhm. rencontre la te rencontre bi si am mooy ni ko ñoom ñaar cukkante nañu. Macron wax na ko fi nga xam ne war na fa France war na fa mën a jàppale Sénégal wàllum énergie bi ñu wax. du neen. pétrole Sénégal bi mu ngi fii. Sénégal ah, bu ko offrir gaz baa bi mu ngi fii. Mhm. minier bi mu ngi fii donc secteur énergétique bi mu nee bëgg na ñu xoolaat ban relation la ñu am du neen am na lu tax. mu wax